dal leen jàmm mbokk yi internet yi ñuy safoo di seetaan suñu Actu TV ñu àddu wax si mauvaise nouvelle bi nga xam ni moo dal si kaw journaliste bi di Pape Alé Niang ginnaaw ba ko yoon tegee loxo si jamono yi ñu génn si ab diir bu yàgg ba tax na sax moom Pape Alé Niang woon si xiifal boo xam ni doon na ko amal doon sàkku yoon bàyyi ko boobee xiifal taxoon sax ab feebar bu di ko fay mujjee woon a dab ba tax na sax yoon daal di koy mujjee woon a bàyyi si ab bàyyi ndégandiku waaye mu mel ni sax boobee bàyyi ndégandiku daal di nay mujjee deñ ni ki démb buñ sukkandikoo si information yi mujjee génn kat moo di moom Pape Alé Niang yoon daal di na koy tegaat waxo ba tax na sax ni ki tey si di ji moom Pape Alé Niang dina jàkkaarloo ak ki nga xam ni moo di doyen des juges si ay yoo xam ni nag naa dox seen diggante moom pap Alé Niang yi taxaat yoon daal di koy jàppaat nag bokk na si ginnaaw bu mu génnee si ab waxtaan boo xam ni doon na ko amal ak ki nga xam ni moo di Mollah Morgun daal di fa yëkkati woon ay kàddu yoo xam ni yoon daf ko ko aaye woon ba tax sax ni ngi démb ñu daal di koy mujjee jàppaat